encore une fois, je m'adresse à mon ami, mon président, uh-huh, uh-huh. le président de tous les Sénégalais. Uh-huh. c'est cet esprit de déplacement de dépassement toog naa ñoom seen bureau wax naa leen ko ayez un esprit de dépassement être euh, mature être du question fenante sax dafa am loo xam ne euh, président du rôlam comprendre nga donc doomu defal euh, encore une fois Assane Diouf ak li ci mënta am yëpp mën naa wul mu defal Kémi Seba. Mhm. te loolu encore devant vous je demande à mon président de pousser de pousser pour faire sortir Khalifa Sall. Mhm. xam nga léegi ñëpp d'accord nañ dañ war a génn Khalifa Sall. te tam li ngeen wax euh, bi ngeen di tàmbali. Mhm. premier jour de l'Assemblée nationale un grand homme politique dee. ah yàlla da lay jàngal de. yàlla da lay jàngal. nga dem hôpital gis malade. wala ñu suul nit da jàng. loolu jàng la uh-huh. donc bi gars yi waxee nag foofu tam maa ngi laaj président uh-huh. encore une fois ma digganteeg peuple am uh-huh. digganteeg li nit ñi wax ñu ñuy nekk ci biti duñ tooga jóge naan ko baax na baax na déedéet ñu nuñ ko jay mu mu doon jiit dañ koy jay mu doon njiit jay mu doon jiit maa ngi koy laaj demandé solennellement solennellement encore parce que un an je demande ça depuis six mois maa ngi demandé vraiment maa à travers la plus grande première dame de toute l'histoire du Sénégal mm-hmm, mm-hmm. san maa ngi ñaan mm-hmm. président xalifa génne ko rek na ñooy